laa génne euh, ngay màggal bis bañ la dàqee fekkee ne terbo bi baaxul ndax moom waxul ne dañ maa génnee xarajtu la wax yawma sabti thamin achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar daf xarajtu génn naa moom yëgalul yaram waxut génnee nañ ma déglu leen ma bu baax su fekkoo ne génnee nañ ma lay wax kon uxrijtu lay waaye ba mu joxoñee tubaab bi naan laan axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidun mu ne génnee nañ ma ñoom tubaab bi pour yaakaar ne damay saalit yaakaar ne lislaam bi ma ŋànk danaa am lu ma manqué wala dara waaye maa ngi dem bésab samedi booba uxrijtu la wax waaye fii def ne moom moom ba muy wax daf ne xarajtu donc position bi mu taxaw position njàmbaar gi mu taxaw moom Cheikhul Khadim bokkul ak position bi noon yi taxaw noon yi dañ ne ko génnee nañ la moom mu ne génn naa ñaari terme yooyu xaw ma ki may waxat nag mu ki nga xamee ne am na hottu grammaire maanaam niveau bi Cheikh Cheikh Ahmad Bamba yi waxee ñoo bi dafa kowe lool jàng xasaay suba ak ngoon taxu koo dégg ndax niveau niveau universitaire bi muy wax ci li ci gën a yéeme mooy jamonoy jamonoy souci jamonoy xalaat nga xam ne ku moom boo na ko noo tudd dana jël ñaari bëtam aj ko ca ni man nu ma tuddati foofa la wayam gën a rafetee asiiru maa abraari hiina asiiru wa zanna al ida anni hunaka asiiru est-ce que Cheikhul mu ne asiiru maa ngi dox maa al abraari ànd ak ñu baax ñi nga ne xanaa da ngaa lu tax waxoo maa al aada yi ànd ak noon yi waxoo maa al fujjaar yi ànd ak waxoo maal kuffaar yi ànd ak yéefar yi xanaa nga naan maal abraar mu ne hiina asiiru ba may dox man maa ngi gis yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ànd ak man ak ñeenti saabaam yi looloo tax ma ne maal abraar gisuma ay yéefar gisuma ay noon mi ay soppe gis hiina asiiru wa zanna te jortu yaakaar al aida noon bi annii naka man assiru prisonnier de la laa maanaam assiru bu njëkk bi ak bu mujj bi li ñuy bokk ba li ñuy bëgg li ñuy tekki te ñoo niiroo tubaab bi ko wax kon Cheikh Ahmadou Bamba moomu digganteem ak Cheikhul Hadji Malick digganteeg sunu maam Alhaji Abdoulaye Niass moo jur sama baay Alhaji Abdoulaye Niass moo jur Baye Niass diggante boobu nekkoon na diggante bu rafet lool ñu jàppoon ne ñun ay jullit la yàlla moo ñu moo ñu moo ñu tobbil tool tob bi maanaam kii ñu ne ko bàyyil lii yow Cheikh Ahmadou Bamba alaaji Abdoulaye ñu ne ko yow lii mooy sa wàll Cheikhul Haaji Malick ñu ne ko lii mooy sa wàll ci tool bi yéen ñëpp nag bu ngeen bàyyee bu boobaa tool bi te mooy toolub lislaam bi dañ naan mooy rafet waaye li xew léegi duma ko wax mooy tendance jël sëb sëriñ nàbb ko di ko kóol waaw sëriñ moom na baax ba gën sama sëriñ waaye yow boo fexee ba xamee ne yow nekkoo ca la sëriñ ba nga wax ne moo gën baaxul moo gën moo moo gën yow baaxoo ñoom nag noonu maanaam mbaax lañ ma sa wane ma ma jël bi ma ci gën a xam suma maam alxaaji abdullahi Ñas jur sama baay muy ab taawo jur baay Ñas muy juróom-ñeenteeli doomam moom ak maam moor jaara magi mag boroom saam ñoo nekkoon di jàng ñoo nekkoon ca Jolof di ay waxambaane yu dencagut di xale yu tuuti ndax ñun ñeseen ñeseen ñii ay jolof-jolof lañ 1911 la lañu ñëw dëkk ci Kaolack ndax maam Alaaji Abdoulaye tubaab bi bu demutoon Gàmbi def fa fukki at ak ñeent comme ni ma ko bàyyi ñu sooxee niñ def seen Tuubaa noonu lañ koy def foofa la xamanteeg maam Mor Jaara ñu wëllërante ne ku njëkk a génn àdduna sa morom na taxaw ci sa bàmmeel jàngal la sóoratu yaasin yàlla def maam Mor Jaara njëkk nelaw lu ko wan wax sama maam xaw ma ko sama maam oo sama baay Xalifa Ñas ne ko yëg naa ne Mor Jaara nelaw na te dañoo wëllërante woon te man mënumaa dem kon demal ma ca bàmmeelam la muy Mbàkke Xewar nga taxaw fa jàngal ko suuratu yaasin boo paree nga jaar njaareem jaaleel ma rakkam ju baax ba Amadou Bamba booba daa daawuñu wax sëñ Touba mais Amadou Bamba lañ daan wax nga jaaleel ma ko te wax ko ni ma meloon ak moom looloo taxoon sama baay njëkk a ñëw ànd ak délégation ba njëkk ñëw jaale si Cheikh Ahmadou Bamba magam ju baax ji Cheikh Ahmadou Bamba daal jël kitaabul Jalaalayni muy téere boo xamee ne moo njëkk ci téere tafsirul Qur'an moo si njëkk a ñëw ci Sénégal téere boobu Baye Niass nana ma ku dut Cheikhul amoo ko fi woon boo ko bëggoon a am dangay dem ba gànnaar nga nekk fa ay weer bind ko dellu soog a ñëw téere booba nga xam ne sëñ Tuubaa moom rek moo ko fi amoon moom la jël bind ca gannaaw téere ba ne yow alaaji Abdoulaye Niass man Amadou Bamba maa ngi nangu njaal mi te di la jox hadiya téere bi hadiya nag mooy kado waaw hadiya baatu arab la kado lu koy wax di la jox téere bi comme hadiya comme kado di ko beesalee wóllëre bi jaaroon suma diggante euh, suma digganteeg suma mag ju baax ji ak yow loola dafay continuer mu jël téere ba jógee Jurbel dugg saxaar wàcc Kawlax jël téere ba jox ko sama maam sama maam ne ko dama bëggoon nga bàkkal ma Cheikh Ahmad Bamba ci teraangaam ji ca nga sàmmwante ceeg ñaar ñaar bi mooy téere bim la jox muy màggaayu alquran ñetteel bi mooy ki ko jox allahu akbar sama bàyyi sukku ca saasa naan cheikhul xadim at xaftana ay aataytana bi kitaabin la nazira lahu arwa galila sadana baada luwaaxi huwa aljalalaani tafsirun liman sibikum yow yaay misbaaxu cilmin ka dawci subxi lamaaci yow cheikhun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama sanaa'i bi mutrihi wa amdaahi jazaaka anna ilahu alaalamina faqad ahyayta min manhajin fi l urfi waddaahi Khalifa Niass moo bàkkee loolu Cheikhul Khadim ne ko waat naa ne yow yaay alquran juy dox yow sëñ Bamba waat naa ne boo doxee alquran a dox boo geesoo alquran a geesu kon jox gi nga joxe alquran sa bopp nga joxe ndax yaay alquran moo tax sëñ Ahmed Badawi bu sëñ Fàllu maa koy ziyaara di ko ñaanal yàlla fan gudd ak wér ak confiance bi ko magam ju baax ji sëriñ Muntaqa dénk ci jumaa jeeg jàng ak Ahmed Badawi nee ma wax dëgg yàlla xoolal mag ñi niñ daan waxantee wax ju rafet ma Maamoor Mbàkke Murtada nga xam ne gannaaw sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma moom laa njëkk xam ci kilifay murid yi sëñ sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma nag ñi nga xamantee Maroc 1967 may ab étudiant Ahmad Ayaan Thiam boole maag moom Baye Niass abal ma ko ma ànd ak moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu dem di jëndi dara jàllaabeem boobu mu sol ak mbaxana mi ba mu koy jënd maag moom ñi ngi ànd moom sëñ Cheikh Mbacke gannaawam nag Serigne Mamor laa ci njëkk a xam eh, léegi nag yàlla def ne Touba ñu baax ñëpp ñoo fa sopp ñoo fa bëgg. mais bëgguñ ma soppuñ ma Cheikhul Khadim lañ bëgg gis ma bëgg ko ndax ku ko bëggut ngir yàlla it nga bëgg ko ndax bañ a ndax moo ne qulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaquuna ma raamu wala albaaba mu ne xol yi ma sopp incontestablement da nga leen fekk ci problème permanent buñ ubbee bunt buñ fëgg mu tëju kon ñoom ñaar noonu lañ meloon di benn ma nettaliwaat ne man ak Ahmed Khalifa ak Sidi Lamine Niass biñ gënee nekk ndaw soo baay doon na dem doon na dem tib mais mais mais tib taxu ko woon a jóg fële la doon jëm dëkk bi ci ginnaaw tib suma xel mi bu bu ko fàttali ko dinaa ko wax nee nañ romb tib ñu romb tib daal di fay julli timis fekk fa Serigne Bachiru mu baax mi Serigne Bachiru xàmmee sama baay jiital ko sama baay bañ mu jiital ko sama baay bañ mu nekkoon kenn ku ne na julli furaada na julli benn yoon be waaye man duma jiitee duma jiital xalifa ñes du ma jiitee xalifa ñes allahu akbar bañ paree bay tasab ma gis nag woo xamee ne bu doon tey bañ na million xaw ma fu ñu ko jëlee sëñ Bachiru ne xalifa ñes lee sab reer la boo yàkkamtiwut ñu defar ko nga reer sog dem boo yàkkamtee nag nga yóbbaale ko allahu akbar mag ñi noonu lañ meloon cheikh mahamadul fadal ba ñuy gënee xale ma toll ci ay neuf ans ahmed xalifa ma maa magee at ak Sidi Lamine cinquante la ahmed xalifa quarante sept man quarante cinq ñu dem ànd ak sunu baay jaar euh, ndindi kër sëñ sëñ Abdou Karim foofu mu dëkk booba dégg naa moo do ay at moom lañ ko doon gor lii may wax cinquante quatre la sama baay sëñ Fallou kontaan lool na ko sama mag jaañ sama baay ne ko dégg naa nit ñi naan la Fallou Fallou Fallou waaye toog naa sabaay ñaari yoon waaye bam mu lay oo Muhammadul Fadul la wax mu ne ko noonee laa tudd noonee noonee laa tudd tudd ma Fallou noonee laa tudd Mouhamadou Moustapha mu ñëw mu ne ko nuyu ko Mouhamadou Moustapha nuyu sama baay sëñ Fallou sama baay ne ko jël ko jëlal sa loxo bi nga teg ci mu teg ci sëñ Touba jël ci mu teg ci muy ñeenteel muy gësam te naan nee leen hànd dee leen hànd tey ak suba loola nag. Cheikhul Khadim waxoon sama baay waxoon ko sëñ Modou Moustapha waxoon ko sëñ Fallou waxoon ko ko pacte boobu nag moom yoon woowu ci la arab yi ñes jaar moo tax ñi ko bañ bañ ko ndax lan sëñ Touba ñi ko bañ ñépp dañ may wax ne li li ngay wax ci sëñ Touba dafa ëpp ma ne leen dafa ëpp ndax sëñ Tuubaa dafa ëpp nit ndax fu mu jaar ku fa mas jaar jaale nañ la bañ ma ndax lan ndax sëñ Tuubaa waaye man ma tànn ñu bañ ma ndax sëñ Tuubaa yàlla sopp ma ndax sëñ Tuubaa bindéef yi sopp ma sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo ma gënal man boobu la option boobu boobu moom laa jël mag ñi noonu lañ meloon Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu anhu sama baay wax jam wax ci Cheikhul Hadji Malick ba mu ko yónnee ba ko baayam baayam yónnee yónnee Tiwaawoon pour gërëmal ko ak intervention bu rafet bu Cheikhul Hadji Malick joxe tubaab bi ndax Cheikhul Hadji Malick moom il a fait une guerre diplomatique noonam yi sax nee nañ dafa àndoon ak tubaab bi waaw agent de renseignement waa waaye loolu waxi noonu la waxi noonu kenn du ko gëm mais Cheikhul Hadji maali il a fait une guerre diplomatique suma baay dafa suma maam dafa taxaw ne tubaab bi waxuma ci yow dara sëñ tubaab taxaw ne kitaab téere bi ne tubaab bi waxuma ci yow dara bu alaaji Malick taxawee ne ki téere bi yow yow yow tubaab bi waxuma ci yow dara kon duñ mën a am audience duñ mën a négocier duñ mën a nangam moom mu tànn négocier jege tubaab bi ci loolu la sauvé sunu maam ba mu ba ñu ba mu installé Kaolack wax jii may wax ci bàyyi ñis laa ko jëlee wax ji may wax ko ko weddi rajo Alfayda laaj ko e, am na am daf koy teg ba bërki biig bi nga xamee ne ñi ngi ubbi jumaa ji nga bàyyi nga koy defaraat 1967 lii may wax du waxi pour bëgg lu lu neex waa Touba déedéet men histoire la ni mu xewee rek noonu laa koy waxe kon Cheikhul Hadji Malick Alaaji Abdoulaye Niass Cheikh Ahmad Bamba muy benn rectangle boo xam ne benn lañu woon yàlla def Cheikhul Hadji Malick génn àdduna talaata 22 talaata ba dellu si àllarba ba ca topp weer ba ci topp alaaji Abdoulaye Niass génn juróom-ñeenti fan lañ rawantee Cheikh Bamba yëg ko yónni Serigne Mbacke Boussa mu ànd ak une forte délégation ñoom Cheikh Maam Anta ak ñoom ñëpp ña woon ñu ñëw jaale si Tiwaawoon daal ñëw kawlax joxe njaalu Cheikh Ahmad Bamba sa sama sama eh, Serigne Mbacke Boussa bind benn xasida wala nazmu ndax olamaawul aruud yi duñ tuddee xasida xasida maa lam tatajaawaz mi'at bayt wa illa fa huwa nazmun waaye du doon xasida sëñ Mbacke Boussa bind bind benn woy daal di jooy Alaaji Malick daal di jooy Alaaji Abdoulaye Niass wax similitude maanaam ñaar yi ñirole liñ bokkee lii la Sëriñ Mbàkke bu sa wax shamsun wa shamsun aama shamsin xaabata fa bakal wara li takaazufi l azlaami wa malikan li sunnati l garraai wa li duafaai wal aytaami allahu akbar Sëriñ Mbàkke bu sa ne adduna bi mi ngay jooy atmosphère bi changé na tey mu xaw a xiin ndax ñaari sang ñaar ñi nga xamee ne kenn ku ne danga tegoon sa tànk Serigne Mbacke Boussa ba muy tagg alaaji Abdoulaye ak alaaji Malick def ne ñii seen tànk dañ koo tegoon ci sunna kon gone yi nga xam ne dañoo dem feneen du ma tudd benn réew ñu jay seen ngor jox leen an xaalis ñu ñëw naan tiijaan baaxut murit baaxut du sunna ma ne Serigne Mbacke Boussa ba muy tagg Cheikhul Hadji Malick Serigne Mbacke Bousso ba muy tagg Alaaji Abdoulaye Niass di tagg Cheikh Ahmadou Bamba nee na ñett ñii seen tànk ci sunna lañ ko teg waa malikan li sunnatil xaraa'i wali du'afaa'i wal aytaami ma joxe conseiller waaye xale yi tey sëñ Touba amul amul amul diplôme alaaji Abdoulaye amul diplôme Cheikh El Hadj amul diplôme mais ñun ñi jàng man mi may wax maa ngi spécialisé wu ci la rhétorique arabe am naa certificat arabe am brevet arabe am baccalauréat arabe am licence arabe am DEA arabe dem bay préparer doctorat suma mag ooma ma ñëw te bu ma gisee woyu Cheikh Cheikhul Khadim yi min al haqi jaa al haqu lil haq fi sahbi bi haqin mubinin laa yuaani bi sahbu damay daanu ndax taar ndax rafet gi ndax rafetal gi mbokk yi maa ngi ziyaara Serigne Mountakha mi nga xam ne benn waaye dafa ne ma da ngay ne niiroo mën na ko amiin mën na ma bëgg di ree rek mu ne ma sëñ Mountakha dafa sëñ Mountakha daal waroon nañ ko utal jaayisa bi gën a màgg mooy jaayisa jàmm day ree rek mu ngi ci jàmm amul souci ndax li nit ñi bëgg bëgguñ ko moom yàlla dong moo ko ñor ba léegi ma nga ca ko wàccagut di nuyu Serigne Ishaqa Mbacke nga xam ne benn lañ maag moom di nuyu Serigne Ahmed Bandawi mi nga xamee ne nee naa daf maa fonk lool ndax la yaakaar ne man am naa xam-xam déedéet tuuti rek laa ci am di nuyu sëñ Ahmad Rafaayi nga xam ne weeru koor wii sa sama na comme sëñ arabi ma waaw waaw mu ne ma bii sax sa numéro bi am na whatsapp ma ne waaw Mbacke mu ne ma maa ngi lay yónni lu tuuti muy suma suukaru koor ndax suma mag ga ma ne ko jëflante bi sëñ Fallou sa baay bu baax bi daan jëflante ak sama baay daan ko jëflante ak baay ñes jëflante boobu day deewut waaye yow yaa ngi koy roose di nuyu di ziyaara kër Serigne Abdou Khader njëkk ko ci xalifa ba Serigne Cheikh mi nga xamee ne fu ma gisee moom it yéemu xam naa du ma ne ndax lu yéeme nekkul ci man mais waxin la rek di nuyu rakkam yu baax la yaa baax ya Serigne Moustapha mi borom jàmm ji eh, di nuyu eh, sunu doomu baay Serigne Bachir Abdou Khadir eh, nga xam ne fu ma gisee it kii ma ma kii kon nag bala ñëw ñëw ci màggal ki te yaakaar naa ren maa ngi ci suma juróom-ñaar fukki at ak juróom ndax mu Maodo Moustapha at mam nelawee suma baay baayam sama baay ñëw jaale si ko sëñ Fallou bi ñibbisee ci laa jub kon maa ngi nekk si mag moo damay xaw a noppalu màggal gi ren incha allah ba déwén moo tax ma def audio bii ne maa ngi ñaan eh, kii bi internet bi ñu jàllale ko di leen gërëm di leen sant ne leen ku ma ci soxla suma téléphone mënumaa joxe sama bos waaye sama doom mooy Ahmad Iyane Niass moomu moom laa am Ahmad Iyane Thiam laa ko tuddee kuy koy téléphoné na nga jël 77 8 8 1 02 79 77 8 8 1 02 79 mooy sama doom Serigne Ahmad Iyane si Ahmad Iyane Niass mooy nekk ci sama pegg saa su nekk boo boo oowee numéro bi dana dana dana ko jox ma gën a jokkoo ak yéen kon màggal gi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ci yàlla def euh, feebar bu bon bii du feebar mais nattu la nattu bi mooy jikko yu bon yi xew léegi iñaanante bi boddante bi siisante bi euh, kenn ku ci nekk booy xool sa morom yaa ngi koy ree mais réewoo ko boo comme ni ko alquran waxee wa ida laqu ladina amanu qalu amanna waaye wa ida xalaw ila pénc ma laa ko tuddee ila buntu jumaa ja qalu inna maakum innama nahnu mustahziun tant que sun jikko yi nekkagul jikko jullit sun mbaax gi des na tant sun mbaax sun sun jikko yi delloo gunca sama bàyyi wax na lu ëpp li ci Cheikhul Khadim ne na recevoir na ma néegam jël ay euh, lekkam la mu daan lekk ci lal bi la ko daan du lal mais mais genre pajaasal wala nangam du tëdd ci lal mu ne mu tibb ci loxom ci mbuus mi teg ñetti baaraamam tibb cere tibb cere tibb ba muy juróomi mbuus mu ne ana Ibra Fall mu ne maa ngi daw raam ñëw mu jox ko peñu suukar ne ko dimbale ma ci Cheikh jël peñu suukar bi comme ñi ngay loxo bi ni melee ni jaas yi noonu la ne tël bankuut ko daf koo tàllal ne rël peñu suukar bi damm mu mar mu mu wàññil ma ba mu baax mu def ci ndox ñetti baaraamam yi la ci mos loolu mooy añam ne sama bàyyi am doom mosal neexut de waaye lew na lew googu nag mu amut lew na lew lew googu nag mooy tax nga am connexion ci yàlla allahu lew na mu ne ko lew na doom lew googu nag moo tax léegi ay jullikat moo fi ëpp ci ay julli boo ne murit yi bokkut taxaw saaga waaw xanaa jullit du ay jullit boo ne tiijaan ña ña ca bokkut taxaw saaga maa ngi fàttaliku foofu laay jeexale màggalu 90 1990 ma ñëw ci kër gu mag benn waaye daal di yor ab carnet ne tiijaan yi lay wër pour bind leen pour ñu wasifa ji arab yi ma ne ah mu ne ma yow damay du ma la bind liste dañuy wasifa léegi ma ne ko wasifa wu ma ne ma xanaa doo tiijaan ma ne ko déedéet duuma tiijaanub tendance bëgguma doon tiijaanub tendance te waat naa ne kooku du julli sax mais ñëw dama ñëw Touba ñu dajale ñu ne xayum xayum nii yoo ko nang kooku kooku yaa xayti yaa xayti tiijaan muy murit murit muy jullit benn waay sama oto bi daf ko gis daal ne oto bi day murite na benn waay mer naan ma lu tax bu naan sa oto bi murite na ma ne ko murite ne mooy l'islam ne murit est égal l'islam l'islam est égal murit loolu rek la man ma ree ne ko ah kon lay war ngaa wax murit yi ñu utal ma oto allahu akbar kon ci tënk lool maa ngi gërëm waa Touba yëpp di ziyaara sang bi Serigne Mountakha Mbacké mi ci jàmm ji gis nañ barki démb mu def lu rëy te rafet jël xaalis bu bëri yóbbu Tiwaawan ne maa ko dimbalee ci jumaa sama maam ji ak a waaye ak baax gannaaw Cheikhul maam El Hadj Abdoulaye Niass sëñ Touba daana yónnee ay ndimbalam wala ay ziyaaraam wala teraangaam voilà daana ko yónnee sama baay damaa yaakaar ne moo ñoom buñ ko xamoon danañ ko def te buñ koy def nag ñu jaar ci man ndax man maay seen am soppe xam ngeen li ma bëgg a wax. buñ koy def bañ ñëwee sama baay wax doomam bi ñuy wax alaaji Omar Niass moom ko nettali ne ko yóbbu ko mu ziyaare ji maamam moom Serigne Mbacke Boussa moom la ko joxoon Serigne Mbacke Boussa ja dugg di jàng suuratu Yaasin ci suuratu di jàng suuratu Yaasin ba ba ci yàgg rek fa yàlla tëkkoo jaam yi rek Serigne Mbacke Boussa jàpp ne wax ji moom la yàllay wax muy rikkat rikkat yii daanu di jooy di jooy di jooy ba ñëw delsi toog fa trente minutes sama bàyyi ne sama bàyyi xalifa ñi ne est-ce que Amadou mbubbam ragal yàllaam mi summi na ko solol ko staafam allahu akbar kon Cheikh Amadou Bamba ay nit la doon defar bu bindu toon téere sax bu taarifu téere sax nga xam ne defar na ay nit ndax foogoon nañ ne doomi sëñ Tuubaa bu jeexee ñu ne Gassi te tey la xale yi waxuma xale yi xale yi mooy de vingt ans yi tey lañ gën a gëm sëñ Tuubaa nga nga benn waay ne mag dañoo ñeme sëriñ ma ne utile sëriñ fekkee te fekkee ne gëmoo ne yàlla moo ekkati ne ko am lii ma la may dootuma ko jox kenn ne ko insister bind mu ne ilay ya qaadallahu ma lam nii wala yakunu abadan lil mumkin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu